japp nañu dal magal gi dana ñew dana jall inshallah allah ci jamak ak salaam loolu daal lay ñaan suñu borom diko